Mbaye Gueye Junior Diam Terry ñu ngi lewto Diam Terry gi jëm accéléré daje nañu ah bagaar dina am xeex dina am xeex dina am Mbaye Gueye Junior jam teeri ndax Mbaye Gueye Junior xeex mooy avantage am ndax moo gën a gudd ay cër jam teeri Mbaye Gueye ñu ngi xeex jam teeri Mbaye ñu ngi xeex jam teeri Mbaye Gueye ñu ngi xeex ñu ngi tax ñu ngi xeex jàppante nañ jam teeri Mbaye jam teeri mënu ta sotti Mbaye Gueye Laye Gueye junior Diam Terry ndaa ñoo jeex na jeex na jeex na jeex na Diam Terry ngi rasu Diam Terry ngi rasu a ah, ñaari xale yaa ngi bëre Diam Terry Mbaye Gueye junior Diam Terry Mbaye Gueye junior Diam Terry Mbaye Gueye junior luy am Mbaye Gueye junior ku ci nekk yaa ngi dee ci sa ci sa ngemu morom sotti na sotteegul attention Diam Terry Mbaye Gueye Junior Diam Terry Mbaye Gueye Junior ku ci nekk ci ñoom ñaar yaa ngi déglu sa morom delloo si waat nañu bëre bi ne tekk ñoom ñaar waaye ku jeg am nga ngem waaye Mbaye Gueye moo gën a baax fi mu jàpp ndax am na ñaari loxo Mbaye Gueye soor jam teeri jam teeri Mbaye Gueye soor dara amagul dara amagul gaaw barke Rasulullah lax ma ngi ñoo ko moom ça nous appartient ndeysaan Mbaye Gueye Junior Diam Terry Diam Terry lu mu bëgg Mbaye Gueye attention Diam Terry li mu bëgg da ko doon jéem a filer sottiwul laa <laughs> ilaha waaye Diam Terry ni muy jàppee di rasu ngay xam ne mbër borom Téeru Mbaye Gueye Junior jam Téeru Mbaye Gueye Junior dara amagul ndeysaan la bi Fallou Fall Mbaye Gueye Junior jëm teeri Mbaye Gueye Junior jëm teeri Mbaye Gueye Junior jëm teeri attention la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ñoom ñaar ñëpp rëpp nañ génn caaku yi la ilaha illallah la ilaha illallah ñaari xale yi ngi bëre ngi bëree ñaari xale ngi bëree la ilaha illa may ngay jël attention may ngay attention la ilaha illa la dem teeri jàll na dem teeri da koo biter ñi